merci beaucoup ci prestation bi léegi nag dañuy woo Maïmouna Bousso moom également mu def discours am pour trois minutes dégguma dégguma dégguma dégguma dégguma am na loo xam ne bëggu leen ko wax parce que da ngeen ci sonn mais nag jeexagul le 17 lay jeex focus bi balaa may wax dama bëgg déjà pour ma témoigner sama affection ak sama reconnaissance ci taxawaay bi ngeen ñu taxaw ngeen tàccul ma seen bopp ndax sama ñaari loxo doyul tàccul ma seen bopp patriote du Sénégal applaudissez encore mérité ngeen tàcc ëpp lii Le message que je veux faire aujourd'hui, a une grande presse internationale qui est là, je voudrais que vous immortalisez ces moments. Je voudrais que vous archivez ces moments. Archivez cette campagne électorale. Pourquoi Parce que le Sénégal, le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse patriotique a choisi. Elle a choisi la démocratie. La démocratie, c'est la la majorité. En fait, on a depuis le 24 mars dernier. à 54% en premier tour, on a choisi pour la première fois un président désigné. Pas un président choisi, pas président parrainé, mais un président désigné par le peuple sénégalais. Et ça, c'est un record. Mais au-delà de ça, pourquoi vous devez archiver ça Vous devez archiver ces images parce que comme il l'a dit tout à l'heure, notre tête de liste, la démocratie, c'est la fête, c'est la joie, c'est pas la guerre, c'est pas les tueries. Nous avons été persécutés, tués. Depuis à chaque fois qu'on parle de l'image de l'Afrique, on nous montre une Afrique en, en, rébellion, une Afrique en guerre civile, une Afrique avec des super Mais là, qu'est-ce qu'on a On a un Sénégal qui a décidé de choisir la démocratie, de choisir un leader politique. Ce leader politique, il est l'antidote de cette jeunesse-là. Il est l'antidote de cette jeunesse-là. Il est la solution à l'immigration. Il est la solution à tous les problèmes que nous vivons. Donc, sa protection, sa protection, c'est la stabilité de notre pays. La stabilité du Sénégal, c'est la stabilité de l'Afrique. À partir d'aujourd'hui, le Sénégal doit être regardé différemment dans le monde entier. Le Sénégal doit être respecté parce qu'on doit savoir que sa jeunesse est debout. Sa jeunesse a choisi son chemin. Elle a choisi un politique. Elle est derrière ce leader politique. Il est le papa de cette jeunesse sénégalaise. Il est le père de cette jeunesse sénégalaise. Il l'a montré. Quand la jeunesse pleure, il a mal. Quand la jeunesse est triste, il est triste. Donc, il faudrait que ce choix soit respecté et que plus personne n'ose venir nous faire de choix, nous choisir des gens et nous dire, regardez à gauche ou regardez à droite, nous avons fait notre choix. Ce choix, nous l'avons fait bien longtemps, di laaj peuple sénégalais yàlla du juum le 17 novembre 2023 lan moo xewoon dañu amoon benn audience cour suprême di xeex pour ñu jox ñu sunu fiche fiche yi nga xamante ne candidat bii moo ko moomoon président Macky Sall jaay sénégalais yi doole xañ leen fiche kon tey pour réparer cette injustice le peuple sénégalais doit se lever et voter pour cette tête de C'est ça la vérité. Nous savons déjà que nous avons le mois de mars. Nous ne cherchons pas que la majorité. Ce que nous cherchons, c'est tout simplement à clore le débat. Nous cherchons à réparer l'injustice subie en 2022, en 2023, mais nous cherchons surtout à envoyer un message au monde entier en leur disant que nous pouvons, nous pouvons choisir. Nous avons choisi, respectez notre choix. Le président Bassirou Diomaye est le président de tous les Sénégalais. Mais le président Ousmane Sonko est le choix des Sénégalais. Choisissez. Acceptez cela. Acceptez cela. Na Sénégalais yëpp jóg bu kenn tayal parce que képp ku tayal rek même ku voté wul woon mars na nga jog nga dem voté parce que injustice lan moo koy réparé mooy bis bi nga xamante ne mooy bisu vote bi kenn ku nekk jël voix am dem voté donc Maïmouna, comme vous le savez, li nga xam ne moom mooy élection législative daa am ñu ne ñoom ñooy les investis ñooñu ñoo ngi ñëw ci ñoom sous dañuy jeexal une partie rek de la liste balaa ñoo jox ñi nga xamante ñoom ñooy les investis suñu paree ci ñoom jox ki nga xamante ne il incarne l'espoir de toute une nation muy le président de PASTEF Ousmane Sonko dañuy woo Déthié Fall moom également mu def discours am su paree nag ñu dugg ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy les investis Dakar maa ngi jéggalu nag baat bi dafa xaw dee tuuti <laughs> non jox na ma ci pastille yi ba tàyyi nag daanaka pastille yi maag moom ñoo ko bokk ci oto bi <laughs> mais xam naa ni daal waaw ah, baa ngoog <laughs> pastille baa ngoog mais di di am mbégte mbégte bu rëy rëy ñëw fii ci pôle de Dakar mais vraiment di féliciter le pôle de Dakar pour cette mobilisation exceptionnelle mobilisation bi nga xam ni battre na tous les records bi ñu tàmbalee ba tey Abbas Abbas non mais bu yi mer naa ni ñu ci bare ñoo ngi ci yeneen pôle yi mais li ma gis laa wax Abbas pôle de Dakar jël affaire bi ah bi non jël ngeen <laughs> bi on a fait nord le sud l'est l'ouest